mbokk internet yi ñuy suivre ci seen site bi di wasaare nuyu nañu leen bu baax ñu ñëwandeek yéen ci li fi jotaru sandi ci ay xibaar mu nekk mbir mu doy waar bi nga xam ne journaux yi moom la ñu daal di yeewoo waa ji nag dafa amee li nga xam ne moo di jàngoroy sida ginnaaw ba mu xamee ne jàngoro ji moom moo def ko yore xalaatul lenn rek xalaatul faju ji waaye dafa xalaat ne rek jàngoroy sidaa bi nga xam ne moom la yor def ko bëgg wàll ki nga xamante ne nii moo di coroom maanaam gelam bi moom la ko daal di bëgg a wàll waajooju nag réussir na ku am parce que seq na ak ki nga xamante ni moo di gelam boobu rapport sexuel ginnaaw gi nag ci la ko wàll li nga xamante ni moo di feebar boobu jamono yi nag ndaw si mu ngi toog ci néegum njàqare toog ci néegum tiitaange ginnaaw ba faram boobu wàlle li nga xamante ni moo di feebaru sida waa ji nag jubluwu ci woon dara lu dul euh, bànneexam maanaam bëgg-bëggam la woon ci teyeefam la ko daal di wàlle li nga xam ne moo di feebar bi ndax waa ji xamoon na bu baax ka ne dafa yore feebaru euh, sida ba mu séqee muy sekk ak ki nga xam ne moo di ndaw si ba tax mbir moom mu nekk mbir bu doy waar ñun waa saare ñu ngi topp li nga xam ne moo di information bi ba xam fan la wànnent di mujjee ki gëtam bu leen puus lu fi jot a ruusandi rek ñu indil leen ko jukki leen ko jërë ngeen jëf ci topp bi ngeen ñuy topp ak taamu bi ngeen ñuy taamu ba beneen yoon incha allah ak yeneen information jaa ngeen jëf